أعوذني الله من الشيطان وخد لي منافعا الأوتان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ثم صلاة وسلام على نبيه سفيه العلم وعلى آله وصحبه ما أحمل فوق الألواه والأوراق القلم وبعد salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu e, mbokki réew mi rawante naag ndaw ñi e, xam ngeen ni ñu ngi ci ñaar fukki at ak benn ci 31 décembre ñëwee diwaanu silkul jawahir fi axbaari sarair ñoom di ci sant ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu mel ne boobaak léegi mu ngi bëgg a yàgg ndax ñaar fukki at ak benn la ci ren bu ko defee muy nekk nag euh, lu symbolique et ñu bëgg jeunesse bi yëpp dëgg la am na ci ñoo xamante ni bii am nañ programme annuel waaye nag njariñi ku tedd ki jamono bu nekk day amélioré wu di gën di feeñ njariñam ci jaam yi moo tax nag ñuy yéene jeunesse bi yëpp njariñ loolu discours yi itam variété bi ak euh, amélioration yi ci ay innovation loolu mooy waral discours yi ndax itam àdduna moo baaxoon noonu étape bu nekk ak la cay xew jamono yi nga xamante ni bii dañoo toll ci di waajal révolution bu pacifique ala kulli xaalin faw ay discours yu bees di ci feeñ ay njariñ yu bees di ci feeñ yoo xam ne day jóge ci xasaayiti ku tedd gi ala kulli xaalin bamba fépp ji day tax fii diwaani sil kil jawahiri fi axbaari sarair day tax ci li ñuy tuddee émergence wala amélioration faw ñu koy gisee nu nekk waaw moo xam ginnaaw intention yi faw ñu koy gis ci paroles yi ak démarches yi action yi ak actes yi bu ko defee ñu jàppee ko noonu incha allah dañoo fas yéene bu ñu ko bu ñu ko suñu borom mayee ak ak tal bu ñu jógee ci trente 31 décembre bi itam dañuy am daje bu mag incha allah ak kàngami journaliste yi ci li nu yéene fekk may nañ ñu ko euh, bu loolu naree jafe ñu koy jaarale ci réseaux sociaux yi waaye daal dañoo dugg ci phase bo xam ñor nañu ñorin wo xam tu communication muy jitu lepp waaw lolu moo tax ñu bëgg lo xamanteni bi xajmé ci 31 bi ci discours lu ci xajul wax dëgg yàlla dañuy amal ben conférence de presse nak ndax dégg ngeen yi ñu jundji ci fan yi té dañu bëgg jundji yi di ko leeral bari ji ñuy wax dañu bëgg diko léral bëgguma rek ñu defé ne dañu tëb tëb rek di wax nii déedéet maanaam jamono bu nekk ak li ci wara xew jamono bi ñu toll nak dañu dugg ñun ci étape bo xamanteni bi yi mu laaj waaw gin intention yi mu laaj waaw ci ay expression ak li mu laaj ci démarche lolu mom uh, um, amuñu sañu amuñu ci lu ñuy bëgg ak lu ñuy bañ non lañ ñukoy ilhamé non lañ koy véhiculer bu ko défé rek uh, di ginnaaw bu ñu ziaree xalifa tey mi xalifa mhm. bu mag bi Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ziar Serigne Abbas ibnu Cheikh Ibrahima Fati Serigne Moustapha Hafsa Serigne Moustapha Saliou njabootu ko tedd ki yëpp kilifa yi ci réew mi yëpp ginnaaw bu ñu leen ziaree di ñaan rek. wajxal xulubana ala tawadudi jiku tedd ki wax moom ca mat la buy shifa yi loolu rek nekk ci suñu diggante bu xale yi jagee rek lépp jag lépp ngi ci xol yi xol moom innamal ahmalu bi niyaati la ko tedd ki wax wa niyaat yi tabaruku bi saadaati ca xoqal bu kaaw am saadaati amwaati waaw loolu ku tedd ki nanu baaxi ci yërmandim rek maanaam xol yëpp rek ànd ñëpp yenente jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu